مفاتح البسر والأمن والجنة بالصلاة والتسليم على مقيم سنة asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi safoo seen télévision Mafatihul Bichri seen mbokk seen xarit seen soppe soxna astu moo leen di dëgtal lu bees tàq ci seen télévision Mafatihul Bichri ana loolu lu mu xanaa émission bu bees tàq di yóbbal yóbbal nag di émission bi nga xamante ne laaye biir askan wi moo ko tax a jóg ci lépp lu aju ci seen wàll diine waaye ba tey du ca yam ci lépp loo xamante ne nii rek dafa uh, soxal askan wi incha allahu ñu ciy dalal ay invité yu am solo bu soobee yàlla euh, saa su nekk rek talaata bu nekk ak alxames bu nekk bu 12h30 jotee jàpp 13h30 une émission à ne pas bu ko kenn wute. mafatihal bisri wal amni wal janna bi salaati wa taslimi ala muqimi sunna